بسم الله الرحمن الرحيم والذي يختص برحمته من يشاء والصلاة والسلام على خاتم الأصفياء سيد الوجود وعلم الشهود المبعوث بالمقام المحمود wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabi'ahum diin bokk yi asalaamualeykum wa wax ci sëriñ Mansour yomb na ndax su fekkoon muy époque boo xam ni dafa cee ñëw moom sëriñ bi te ñu bare fekke ko sax nga mën cee xuus nga ni histoire booy jàngale ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga ni kan mooy yonent bi ñi ko fekkewul te jànguñu histoire am nga jàng histoire bi mën leen xamal kan mooy Muhammad wala nga jàngale ci cheikh wala ci mag mu fi jaaroon te kenn xamul boo jàngee histoire sëriñ Babacar si radiyallahu taala anhu mag ñi ko fekke woon daanaka jeex nañ ñi ci des ñu néew lañu waaye xale yi waate sëriñ Babacar yu bare tey boo leen laajee kuy sëriñ Babacar si xamuñu ko waaye koo gis mu ni la barki sëriñ Babacar bare na xale booy dab mu ni barki sëriñ Babacar soo ko ne kuy sëriñ Babacar xamul kuy sëriñ Babacar lay juddu ci ginnaaw mbay ñu fi ñu mbay te mbay ñu gëm xale ba ci xeer bay maama bu yàlla moo ki ñuy bëgg a waxtaane tey muy Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour radiyallahu taala anhu Cheikh Seydi Aboubacar mooy baayam Cheikh Alxaaji Malick ko jur dafa daan wax ni silsila doy na nga ni fan laa jële tariqa bi ni ko bàyyi foo jële tariqa bi mu ni sëriñ Babacar sëriñ Babacar alaaji Malik alaaji Malik alfa alfa Cheikh Omar Cheikh Omar Mouhamadul Ghali Cheikhuna Tijaani yonent bi yàlla kon doy na rek nga ni Cheikh Seyd Mouhamadou Mansour gane na àdduna le 15 août 1925 génn àdduna le 8 décembre 2012 muy 87 ans ci atu tubaab waaye boo calculer diggante boobu ak bi muy génn àdduna ci atu wolof 90 ans la Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour mënul woon a rëcc le 8 décembre. impossible du woon génn décembre xam nga lu tax mujibu waaw Cheikh El Hadj Abdou ans la def Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour def 15 ans muy cinquante ans bu ko jéggi woon rek du sotti mënu ko ñàkk bañ a dem bi ci topp mooy boo calculer 87 ans yi Allahu tayyib la sëriñ bi. diggante bi mu juddoo ba bi mu génnee àdduna léppam tayib la waaw ah, allahu tayib waaw allahu 66 la yaa fukk la taa juróom-ñeent la baa deux la muy 87 boo ko calculer moo tax sëriñ bi mënul woon jéggi bés boobu damay wax ni keroog bi sëriñ bi génne àdduna ak li mu ñu yar yépp jàngal ñu ñu jàng xam-xam ci lay soog gëm ni faatu am na mosuma gëm dee yebal yàlla xam na ko pare xam waaw li ma li ma yëg ci bi ma tiimee Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour mosuma ko yëg ci ni nit dee dina am waaye ndeke ci laa jànge ni ndekete lu nit baax baax ak loo bare bare ji loo bare bare xam-xam ak garaat bu ñu la mën a tappal bu yeboo rek nga jox yàlla sa bopp boo joxul yàlla sa bopp da ngay perte ndekete garaat lu mu rëy rëy ndekete garaat lu mu foor foor sëriñ bi ñaata garaat la dégg ndax dëgg dëgg dëgg su fekkee ne xaqiqatan boo masaani boo bindee leetar bindal leetar rek nga def ci borom daara ji su fekkee ku jub maandu rek la bu yëkkatee lettre ba yóbbu ko Tiwaawan Seydi Abubakar radiyallahu taala anhu daf leen jëloon ñoom ñaar boole leen def leen ñuy ay cheikh bi mu bi ñu amee juróom benni at boobu seen bàyyi dafa tukki sëriñ Babacar mu ñëw fekk leen ñuy njambaan ay buy di loolu ñuy wax xojog mu ni leen yéen seen baay jubloogul ci yéen tey ma jublu ci yéen wiccax seen loxo raxas yóbbu leen ca daara ja bool leen góor gi Ibrahima Dieng ni ko dalal leen ba seen bàyyi ñëw fekk sëñ Babacar tukki bi sëñ Babacar ñëwee xam ni soxna si jiitu na ko ci sëriñ Cheikh ak sëriñ Mansour mu doo leen jël yóbbu leen sëriñ Mamma sëriñ Mamma door a leen a àggaleel seen alquran ma suñoo tàqaliku ñoom ñaar muy sëriñ Cheikh ak sëriñ Mansour loolu moo indi kenn ku ci nekk tudde sa moroom sa taaw dañoo toog di jàng ibnu Achir di xaar seen papa ci buntu néeg bi mu ubbi kenn ku nekk yor sa téere ba mu yàgg kenn ki ni sa moroom ñaanal ma su ma amee sama taw tudde la ko mu ni ko man tam ñaanal ma su ma amee sama taw tudde la ko ñu toog tuuti sëriñ Babacar si ubbi ibnu Achir laa wax ibnu Achir ci daara ji xam nañu ni lu teel nga koy jàng waaw ñu ngi may euh, wax ni Serif Cherif Cheikh Tourate Haydara moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara di ko jox wàcc waayu maamam tabaarakallaahu xel mooy fatu waaye ñoom xaddimu qurayshan rek wala tuaxiruha jamono dox tuuti Serigne Cheikh sunu yaay sa fi dem am gan muy taawam muy góor mu dem wax ko sëriñ Babacar ni ko Sophie am na gan lu mu am mu ni ko góor ah kon dey sa maam Sidi Hadj Malick am na turandoo mu sëgg rek ah wax nga dëgg xam naa koo ko bëgg a tudde sa bàyyi ji Mansour mi la yar mu sëgg rek mu ne ko wala sa xel dafa nekk ci Abdul Aziz sa baay mu sëgg rek wala sa pap Habib nga ko bëgg a tudde mu sëgg rek mu ne ko man kat maa juum fàtte woon naa ni Moustapha mooy sa sa mag di sa wayjur di sa taaw mu sëgg rek mu ne ko wala Mansour boog mu ne ko waaw kay pap dama ko niisaroon maag moom ñu daal di dem tudd Mouhamadul Mansour bu sëriñ Cheikh ñu tuddee ko Serigne Mansour ñu daw tuuti soxna Faat si am gan Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour dem ca baayam Serigne Babacar si pour wax ko ni ko Faat si am na gan naka la ñëw ci moom ni ko Faat si am na gan daf ni ko bu ma la tardeel bu ma tardeel Cheikh a ngoog mu ni ko jërëjëf si. parce que beneen baat boo ci waxoon dana ma metti ndax du mën a bëtt sa ndigal te maag moom dañ ko niseroon mais loolu garaaw li garaaw mooy bésu tudd ba ndax soxna Faat si booba ma nga ci kër baayam alxaaji Mansour ba mu nekkee ca kër baayam alxaaji Mansour fa la ñu war a dem tuddi ji fa Serigne Cheikh Serigne Cheikh ànd ak Serigne Mansour programme 10 heures pour dem tuddi seen doom wala 9 ñu sañsee ci kër gi wuti kër alxaaji Mansour pour dem tuddi seen doom naka la ñuy agsi bay dugg si fekk alxaaji Mansour di génn ci néegu soxna Faat si tudd doom ji ba pare alxaaji Mansour moom ba ñu ñëwee ba ñu paree seen bopp ba sañse ba war a ñëw tudd seen doom ba nëbbu seen tur ni bu ñu agsee Serigne Mansour moom tur bi mu nar a tuddee Serigne Cheikh bu dul Niger bi amoon mook bàyyam sëriñ kër rek ko yëg keneen yëgu ko ma ngay tuddi doomam ak si sëriñ Cheikh jëkk a dugg pour jël liir bi ñëw fekk dajeeg Cheikh El Hadj Mansour rek mu tàpp ko eh ndokkale waay eh Cheikh ndokkale ah. mu ne ko ah papa lu xew mu ne ko eh, tudd mu ne ko i papa nan ngay tudde doomu jàmm te ñëwaguñu waaye noo ko tudde mu ne ko eh tuddee naa la ko déggal Cheikh El Hadj Mansour tudd mu ni ko tudde nga ma ko mu ni ku la waxoon mu ni eh, rafet waay man xaw ma te moo ci ndax man li rafet rek laa def xoolal loolu bu ñëwoon fekk bàyyam Cheikh Hadj man su tuddee ko keneen nu muy def mu ñëw rek tuddee ko ko Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour kenn masu koo rax ci al ci téeréem bu dul ñii Serigne Alioune Gueye Serigne Cheybatu Fall euh, góor gi Birane Sarr euh, euh, kii góor gi maxtar Sall ñii ñoo ko jàngal kenn rek moo boole woon funun yëpp parce que kenn ku ci nekk ci ñooñu ay fànn nga ko doon jàngal ñii dañ ko doon jàngal naxu ñii di ko jàngal luxa ñii di ko jàngal fiq ñii di ko dàngal nangam waaye kenn rek a boole woon funun yépp di ko jàngal muy Cheikh Seydou Bakar mu boole di jàngi ci baayam di jàngale toog yor daara ji bi ñu koy tuddee borom daara ji du tey Cheikh Seydou Bakar radiyallahu taala ci boppam moo ko tuddee borom daara ji ci sababu ay nit yu fa ñëwoon am ay itte yu ñu doon laaj ci masala mu ni bëreet jóg ànd ak ñoom ca masala ba te boobu délégation boobu euh, ñu bare fekke nañu Boubacar Sy ambassadeur ak ñoom daat Alpha daat ak ñu mel ni ñoom ñoo ñëwoon ànd ak ñëw ak seen question bu am solo di ko laaj ci sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala anhu góor gi am paate ba ba ñu ñëwee mu ni leen nañu ànd ñu ànd ak sëriñ Babacar si mu ànd ak ñoom wuti kër peer mu ni leen kaay leen ma yóbbu leen ci borom daara ji mu wax leen question bi ca booba la ko bàyyam tudde borom daara ji fekk maamam Seydi El Hadji Malick tudde na ko borom daara ji waaw Cheikh El Hadji si Maodo bu Cheikh El Hadji gént gis Seydi El Hadji Malick moo ko gént gis ko mu wax ni alaaji Malick génn am benn question bu mu doon laaj ña daje woon ca jataay ba kenn ku ci nekk jóg wax mu ni ko du noonu keneen jóg wax mu ni ko du noonu ba Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour jóg wax mu ni ko hakada hakada hakada Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour radiallahu taala anhu nit la woon koo xam ni fi mu jànge dama ni kenn masu ko rax ci baayam Cheikh Seydou Bakar lu dul ñii ma tudd masul jéggaani fenn ñett rekk moo ko mas a ñor Tiwaawan tool yi téere yi ma ni Tiwaawan tool yi téere yi ñett yooyu rek ma sa ñor sëriñ bi dafa maye lépp dafa maye lépp jël ñett yooyu ñett yooyu fay ndax kilifa ga dafa am njabootam yàlla dogal mu am ay taalibeem amul doom mu dem ba wóolodiku boppam ndax mage ak wéradi mag ñi daan nañ ko def mu préparé fekk ci biir njaboot gi mu yar am na ci benn xale boo xam ne dañ daan wax ni góor gi daf ko favoriser de trop daf deen di gënale ak ñoom ba dañ ko daan siis ci góor gi waaye góor gi teg bët xale bi rek ba bés góor gi nattu njaboot gi woolu leen fexe ba laata mu leen di woolu mu yónni xale bi yónnent bu sore bi xale bi dëddoo ba dem mu woolu njaboot gi ñu ñëw mu génne alal ji mu yor yépp moom góor gi ni leen awma doom yéenay samay doom wóolootuma sama bopp mage duggal na ma feebar dikkal na ma te bëgguma sama gannaaw sama alal muy am histoire ma bëggoon leen ko séddale te yàlla tax ma bëgg kenn ku ci nekk li nga bëgg nga jël ko kenn ku nekk xool ni gisul xale bi ñu ni ko waaw góor gi diw de nekk fi mu ne ak ah, diw yéen a ko mag yéenay kilifaam bu fi nekkoon it yéenay jëkk a jël seddu leen ba pare bu ñëwee lu mu fi fekk mu seddu waa li Idrissa yaa ko moom mu daldi ñu joxe cër yi kenn ku nekk jël jël jël jël jël jël ba doyal commencé nag di bégu xale bi agsi ñu dogale ko yow di sa góor gi tey def na la ko sa góor gi tey def na la ko mu ni lu xew ah góor gi teraanga jim fi génne kenn ku nekk seddu nga te yow ni nga mel ci moom yow lay yónni fu yow li ngay daj ci moom ba bëccëg mu bàyyi la ba nga dem mu séddale fi teraanga ju toll nii dara desu fa lu dul ay xale bi agsi ci góor gi ñoom ñëpp ñu daw groupe boo rek agsi di xaar xale bi histoire baag mer baag nan la war a ban réaction la war a am ci kanamu góor gi naka la agsi rekk góor gi ni ko man dey sa gannaaw def naa fi lii say mag nag laa xam ni soo fi nekkoon nit ñoo lay jëkk a séddu ma ni kon sa wuute du yàq sama liggéey ca loola kon naa leen bàyyi ñu séddu ñoom ñi ngi nii kenn ku ne séddu nga lii a fi des yow loo cay jël yow looy séddu mu ni nipp ci mbubbu sëriñ góor gi ni ko man seddoo naa la mu ni ko ah lii nag mu ni ko mani sama bët ci yow la tegu woon man yow laa séddoo ñoom li des nañ ko jël man naa la am mu ni leen li a toxoon ma gën a lekkoog yéen Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour bi àdduna teewee lépp teew dafa ne Babacar si seddoo naa la maye groupe Babacar si faye ko boppam mu dégg xalifa bi dégg borom daara ji dégg borom sañse bi dégg borom limousine bi te dala yàquwul zéro faute damay wax ni diine jamu ko Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour diine jamu ko fii ñu ko fii mu mujje tey ci hôpital américain nëy bi mu jëkkee dem France première sorteem sëriñ bi ñaar mosu koo bëgg bokkul woon ci ay programme am passeport ak compte boo ko waxee mu ni ma ñaar ñaari yi yëpp am naa ndax ñii tukki ñëpp man la ñuy xaar lu may doy passeport ñii ubbi compte ma leen kuy ubbi lu may doy compte man Babacar Sy mooy sama compte Babacar si mooy son passeport waaw mosul soxla loolu hôpital américain yi bi muy génn première sortem en quatre-vingt-dix-huit Serigne Abdou moo ko forcé ni ko Xaddaafi dafa woolu xalifa yépp mënuma laa demal parce que xalifa yépp a ñu dem te yow yaay xalifa cheikh kon foog nga dem ñaar la fa wane ba mu demee foofu ñaar baat bu jëkk bi mooy xam-xam ak diine parce que bi xolafaa yëpp toogee discours am la wax ni moom mooy jëm jëm kaw benn kàddu la fa wax moom dong la fa xaddaafi dégg xam ni xam-xam jóg na parce que xaddaafi bu dee xam-xam rek ci moom rek la yem waaye ba mu ko taggee tagg yam ko tagg ba agsi ca wa muammarul xaddaafi amara diinana bi juhudihi wa bi juhudihi l yi nii la xaddaafi def dafa jóg yëkkati loxo yi ni allahu akbar allahu akbar allahu akbar daal di toog ci suuf daal ni Moustapha Cissé kii mooy kan mu ni ko kii mooy Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour mu ni ko kii fu mu jànge mu ni ko Tiwaawan ca dëkk ba ñu jógee di senegal mosul génn Tiwaawan wane na fa diine ba ñu demee ca fa ñu doon jullee jumaa dañu wax ni tey Xaddaafi mooy jiite jumaa ji maanaam dañoo woote jumaa ñëpp dem wuti jumaa jumaa ji toll na ni fii ba Thiès ndax rëy ci ay nit kenn desul ñu jël xalifa yëpp def leen ci kanam nii ñu ràng ñu jàkkaarloo xaddaafi ñu dugalal ko ci benn kii mu mu war a ñëw di xutba gaa ñi noddu jékki-jékki rek xaddaafi daal di jóg ak discours sëriñ bi ni ma kuy jiite nii ma ni ko xaddaafi mu ni ma kobasal ma sa maam Cerno Seydou Nour eh, Cerno Muntaga ma daal di kobas maam Cerno Muntaga mu xëcc ko ba ci nopp yi ni ko cerno mu ni ko mu ni ko bu ñu xaddaafi jiitee amuñu jumaa amuñu amuñu tisbaar ndax musaafir la moom ñu ne yem te mu xiimu ay ayaamin dabu ko waaw bu ñu xaddaafi jiitee rek amuñu jumaa waaw te du amirul mu'minin a teg ci bu ñu jiitee rek amuñu jumaa ñaareel ba mu ni ko atiqa ñi fi jumaa ji ñu tabax defar ko ba pare mi ngi fi ñu tegg ko fi ñëw ci ndànd foy foy gii nañ fi julli muy naafile ci ñun bu ñu demee kenn ku nekk boo julliwul tisbaar di nga ko layoog sa borom mu dajale mbooloo ma mu àndaloon yépp ni leen yëg leen ni kenn ku fi nekk boo fi jógee boo jullee jumaa teg jël sa tisbaar ak sa jumaa teg ko ci jumaa jii bu ëllëgee di nga ko layoog sa boroom kon sëriñ bi diine jàmm ko sëriñ bi masul toog fenn boo ko masaan lalal sijaada ci àll mën ngeen fa def fukki minute ak juróom pour di wax xool waxtu yi di xool ndax tegu na ci yoon wala teguwul ci yoon wëlbatil baa fii la est-ce que wóor na defaraatal bu ma masaan a toog ci wetam ci gàmmu téyal ko micro lenn rek moo doon itteem micro bi la muy neex neex ca moom lenn la soxla ca man xam nga lan la soxla Habib bés bu waxtu yu jotee te waxoo ma ko bu ma demee dinaa jëflante yow moo tax fu gaañu fu ñu nee nii rek ma ni gars yi wooy leen bu ñu wooyee rek ma déy ko ni ko amee nga dese nga 15 minutes desee nga trent minutes muy ma baax bi mu nekkee ci hôpital américain nayi keroog ba mu fa ñëwee premier jour mu dugg fa dañ ko booleeg benn docteur benn professeur bu nekk foofu pour mu defal ko ay seetal ko noonu bi mu agsee dugg ñëw ñu toog di ko xoolal jox ko rendez-vous mu toog mu jékki-jékki di xool di xool mu ni waaw man waxtu yu ma daan julli timis mi ngi bëgg a jot daal di woo alaaj Mansour si Jamil ni ko xaaj Mansour timis de dafa mel na xanaa jot na mu ni ko waa pampa jot na kañ ah xanaa du ñu julli alaaj Mansour tiit ni ko ah, fii di nayi ci diggu xolu Paris nga naan julli timis hôpital américain fi julli am fi boo àggee kër nga fay mu ne ko fay ñaaree mën a am ñu am fu ñu jullee julli mënuñu ko docteur bi lebal ma rendez-vous ba beneen ma dem julli ci mais duma fàtt waxtu yàlla ndax ay rendez-vous ki ay docteur mu def kaf mu def dëgg alaaj Mansour daw wuti docteur ba gis professeur bi jigéen la woon waxtaan ak moom professeur bi ni ko am ngeen chance parce que sama collègue bi may liggéeyal ñoo dend bureau yàlla def na tey ñëwul liggéey si dama leen di ubbil bureau ngeen aménagé ko ngeen def fa li ngeen fa bëgg a def mu ubbi bureau ba ñu aménagé ko ba ñu mën faa julli ñu ñëw taxaw di li xam sëriñ bi ni ana sijaada kenn daf ko prévoiroon ana sijaada yi jamono hiver sedd ku ne xam na ni France ni muy sedd kenn xamu ko daan naa dem France sëriñ baa ngi war a dem France dama daan am kersa sol ay costume ci kanamu sëriñ bi waaye tey ñi ngi dem France dama xam ni may daw di doxi course yéeg di def yëf moo bëggee boole grand bu bu yéeg lëfër lëfër yi dafay metti ci aéroport bi laa sole benn costume ñëw fekk ko salon d'honneur mun ma i waaye yow nekk nga tubaab tàgg guñu di ma ni quoi ah, dama laa bëgg a teel a xam la ma fay def rek <laughs> waaw la bëgg nga teel a xam lañ fay def ba ñu accès ba mu gis sedd mun ma yow wax nga dëgg yow am nga fula ah. léegi nag il faut ñu wutali ma man ay jàllaabi parce que man tam sama grand bu yi sedd bi fu nekk la may dugg waaye keroog yàlla dogal seddul torop maa ngi sol benn grand bu baxa mun ma tey danga nga baxaw tey tut tey ana moom du ko tuddee ko costume euh, fekk Pape njaay ku baax benn doomam tailleur mooy nekk di di di ma ci sañse tabarakallahu ma ñëw rek mu ni ma ana yu geetaru yi waaw ana yu geetaru yi ma ni ko tey de geetaru ma ndeke booba yëg naa ni rek moom baatinam la waaye bi ñu taxawee mu ni ana sijaada ma daal di sama grand bubu rek laalal ko ni ko sijaada baa ngi mun ma yow koy lee tax geetaru woo tey daal di ñu ko liqaamal ko mu daal di julli tey hôpital boobu bi muy dem ñu di ko transféré di ko yóbbu France jóguñu woon pour yóbbu ko foofu mais ci ñàkk place moo tax ñu yóbbu ko ci hôpital américain bi nga xam ni fa la jullee woon timis foofu la génnee àdduna moo tax ma ni ñett diine jamu sëriñ bi diine masu ko jam bu masaana toog di jàngale lenn rek moo daan nekk itam fu waxtu julli jote ak noo mën a toll mu dagg la muy def jóg julli bi ci topp damay wax ni ñett lu jafe la am xam-xam saf yàlla saf nit ñi ma ni am xam-xam saf yàlla saf nit ñi ak a jafe benn nga am xam-xam doo saf yàlla doo saf nit ñi walla nga saf nit ñi amoo xam-xam safoo yàlla walla nga saf yàlla mais yàlla nattu la amoo xam-xam safoo nit ñi amoo benn xorom mais moom rek moo boole woon am xam-xam fu mu waxee nga ni est-ce que borom daara jàngoo moo safoon nit ñi ba bu génnee ñëpp topp ko sëriñ Mansour ngoog sëriñ Mansour ngoog moo safoon yàlla bu boo ko waxee sa soxla du bind bu la naan jeex na jeex na booy dem bal bi tàkk kooku mooy Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour الشمس وما غربت da ñeenti bayit la Cheikh El Hadj bu tedd ba Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour façon côtoyé bu nekk côtoyé woon na ko ay bàyyam jëkkewul ci foofu bàyyi mi mu fekki yépp kenn ku ci nekk cër bum la war a jox ba nga war ko jox la mu moom ba defar ko ba defaaleel ko def na ko def na ko ci Cheikh Hadji Mansour mu yëkkati doomam jox ko doyul ba mu koy jëkka ba mu ko xamee ni daf koy jox doomam jiitu la boobu Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour gën na nekk xale nekk ci daara ji bu bàyyam Seydi Aboubacar amee leetar wala dara loo xam ne dañu ko yónnee yóbbante ci seen diggante parce que Cheikh Al Hadji Mansour ak Cheikh Al Hadji Abdou ñoo nekkoon ay généralu Serigne Babacar si bi Serigne Mansour ak ay Serigne Cheikh ak ay Serigne Euh, Serigne Moustapha juddooguñu wala bi ñu nekkee xale booba ay secrétaire am ay ñoo xam ne ñoo doon nekk ay avocat am nekk léppam bu Cheikh Seydou Bakar Cheikh El Hadj Mansour la woon ak Cheikh El Hadj booba temps lu ma sànna wàcc ci sëriñ Babacar si bala cee wax dara ni demal laajal ma Mansour mu wax ci xalaatam mu jël benn lettre moom sëriñ Babacar si ni Serigne Mansour yóbbul ma ko ci sa bàyyi Mansour sa turandoo ne ko na jàng lettre bii booba affaire sekku la na ko wax ko ni ko lettre bi dañ ma ko fee yónnee pour ma dugg ci affaire sekku waaye génn naa ci moom itam bu ci amee bu mel noonu na ci génn sëriñ Mansour yëkkati lettre bi yóbbul ko trondom bàyyi xel xaaji Mansour mu ne ko indil nañ ma bu mel nii waaye gàntu naa mu ne ko sa mbàppa moo ne woon bu ñu la indilee lu mel nii na nga gàntu mu ne ko fekk na ma gàntu waaye may ma bala ngaa dem dimbali ma rek bul woy daal di koy bindal benn benn bayit daal di koy bindal ay bayit waaye bayit ba mu ko bindal e, daf ni ko ayaa ahmad al mansuuru najd al xalifati falaa zilta mansuuran ladaa kulli wijhati ayaa ahmad al mansuur yow muhammadul mansuur gis nga mag ñi ñu baax lañ xam nga ñun bu ñuy wax dañu naan Cheikh Mouhamadul Mansour waaye mag ñi aya ahmad al mansour lañ doon wax waaw ñun bu ñuy wax dañu naan mouhamadul mansour wala mouhamadul habib xam nga lu tax suñu niveau foofu la yem mais mag ñi seen niveau ahmad la yem ndax mouhamad ak ahmad a fi nekk ahmad ca kaw la mouhamad ci suuf la déedéet déedéet waaw ahmad yonent bi ca kaw ahmad la tudd ci suuf muhammad la tudd ah, ahmadu shamsun wa ma garubat Cheikh Hadj Abdou Cheikh Hadj Mansour ni ko ni ko aya ahmad al mansour euh, xam nga tariqa bi tariqa bi inna tariqata al muhammadiya manshau di tariqati al fardiya bil xadaratayni gabantum ahla tijaani xuduril بالحضرتين فبنيت

Alxaaji Abdu radiyallahu taala anhu damay wax ni wax naa ca Europe ma ni leen li ma gën a jaaxal ci moom benn affaire rek la damay laaj ndax Cheikh Alxaaji dafa njooloon wala dafa gàtt xam nga Cheikh Alxaaji soo nee dafa njool da ngay kafaara boo nee dafa gàtt dangay ngay kafaara xam nga Cheikh Hadj Malick dafa bëggoon yonent bi sallallahu alayhi sallam ba yonent bi fay ko ci ay njabootam kenn ku ci nekk am nga loo jël ci rasulullah waaw kenn ku ne am nga loo jël ci muhammad mani Cheikh Hadj Abdou yonent bi gàttul woon ba ni nuuj njool woon ba séttax boo xoolee Cheikh Hadj

loo dem ba defa ni sut nga ko boo ko joxee sa mbubb du ko aj bu koy sol mu koy jot ba jaaw bu rafet ba sàkkar yàlla bu rafet ba mbaxane mu jekk ma bu jëlee baaraam ba ba ne ko tekk ci biir ñaari sàkkar yàlla yooyu ba sëgg ba nga defe ni ma ngay xalaat fekk xalaatul xel maa nga ca yàlla moom moo toog Cheikh El Hadj Mansour si mu ndaw bii di doomam di xaritam ni bala ñuy gàmmu cérémonie officielle dafay dem jëli baayam ca Jaksaaw bu nekkee ay nu di mu jëli ko fa ànd ak moom ci oto bi wàcc ak moom dugg moom ci cérémonie officielle bi keroog ba Seex Alxaaji Abdu ne cëpp jox loxo sëriñ bi sëriñ bi di ko may loxo muy wàcce tànkam bëgg dugg ci oto bi ci la ko ni ko kana mu ni ko mën a Mansuur mu ni ko Mansuur tallaahi ma talaan tallaahi maa ngi waat man abdu maa talaat masul fenk shamsun jant jant masul fenk wala muy so tallaahi maa talaat shamsun wa maa garubat shamsun illaa wa anta munaa qalbi ndara yow sama mébétu xol yaa yaay nekk ci sama xol di ko jax-jaxal man man man abdu su jànk su jant dee fenk wala muy so yow ab yow Mansour yaay nekk ci sama xol di def nii rekk ala qawmin illa wa anta hadith lu waxtaan wi neex neex su ma nekkee ci mbooloo ak mbooloo ma lu mu bare bare man abdu su may waxtaan ak ñoom su ma la wa su ma la rëndewul bu may togg man abdu su may togg mu ni ko waaw mu ni ko bëgg togg mi neex su ma la rëndewul du ma du ma du du ma yor ñam lu neex yow yow yaay nekk sama rënd man Abdou loola doon neex مسرورا إلا وذكرك أيضا بمذنبي إلا وذكرك مقرور بأنفاس نينا كو سمنو بوماي نوي muy yéeg wala muy wàcc yow yaay nekk ci diggante ba bu yéegee yow la bu wàccee yow la. سمام سباي وما تناولت شرب الماء لا رأيت خيالا من كفيك Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour nee na baat yëpp bi li ci gën a neex nee na yi ko bàyyam wax yëpp booboo ko ci gën a neex. wantu. شرب الماء إلا رأيت خيالا منك في الكون nee na ko bi yi ma wax yépp booba ma ko dàqal Cheikh Hadj Abdou radiyallahu taala anhu du waxantu maa yantiqu anil hawa ci la bokk du wax mukk ci bànneexu bakkanam lu mu wax dañ ko ko déy fu mu waxee xamuloo ni Cheikh Al Hadj Abdou làmmiñam du wax déedéet làmmiñam yàgg na ay magam di ko ko wax sëñ Babacar Si radiyallahu taala wax ni ilham maa ko nangoo ci Cheikh Al Hadj Abdou munaaka xaduqu sahaada al yawma bushraaka Abdul Aziz déggal li gën a neex bu loolu dé mu ni Cheikh Alhaji Abdou dinaa ñëw ci li nga wax léegi Cheikh Alhaji Abdou daf doon jàjju boppam ñoom nitu yàlla yi dañuy toll foofu Cheikh Alhaji Mansour radiyallahu taala anhu moo ko woy wayam yu rëy ya abdul azizi a'irini al qalba usika wasiyatan anka tashfi kulla ma fika abdul azizi a'irini al qalba usika ma mbay ma lii duuf ci nag yi xajul ci cin li gaa yi wasiyatan anka tashfi kulla ma fika

jërëjëf mani sëriñ bi Cheikh Hadj Abdou daf ko wax ni ko anhu ni man Abdou suma maree naan yónnee ndox ñu indil ma ndox ma teg kaas bi ñu xellil ma nee na su ma demee bay naan yow laay gis ci biir kaas bi ngay lux lux ma soog a naan su ma la su ma gisul sa jëmm ci kaas bi du ma naan yëgal ni gannaaw korité bu nekk Cheikh El Hadj Abdou dafa daan bégale njabootu Cheikh Serigne Babacar Sy ji ndax Serigne Babacar la jàppoon ni mooy sëriñam asfiyahi.org muy mottali kóllëre ci njabootu Serigne Babacar Sy bu ñu wooree ba ca ëllëg sa wala gannaaw ëllëg sa mu ñëw ziyaarante ak ñoom jaar ci kër soxna Umu ñu berndeel ko fa bañ ko berndeelee ba àggal ñu du def lépp bu ñu fa daan jógee bu ko ko yaram wi mayee mu àgg ba ci rawdu ba wala mu jëkke ca rawdu ba door a ñëw ci waxtaan wi way bi mu jëkk a def ci feeñ sëriñ bi dafa ànd ak moom waxtaan ñu wax ba àggal ba ñu ñaan ba Cheikh Hadj Abdou di jóg ba ñu nee bëreet di wàcc sëriñ bi téye ci loxoom nam ko daan def di ko tette tette xam nga ku xamoon nu muy côtoyer baayam yi la woon dafa daan topp seen gannaaw nëbbu xam-xamam ak dara jaam fexe ba bàyyi leen ak ñoom lañu am nëbbu li mu yor tey wuti lañu yor xam nga lu mu ko wax man suuru saayuka inda allahi mashkur wa fadlukum bayna ahlillahi mansuur wa kunta li diini shamsan yustadaau bihi ala al aadi wa anta dahra mansuur waaw man suuru saayuka inda allahi mashkur waaye li gën a garaaw du loolu waxu ko wa fadluka waaye wa fadlukum bayna ahlillahi mansuur xoolal Cheikh Hadj Abdou masul tutoyé Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour parce que booba yàlla xamal na ko ni li nga yor moo ko yor moom nga koy jox moo tax mosu ko tutoyé mooy doomam mais mosu ko tutoyé mu nga dégg Mansuuru qad wullitum sirral xilaafati mawrida damaani inna alqasidata hadihi la hadiyatun min faydi cheikh ahmad tijaani xudha ilaykum yabnana wa habibana min ammikum abdul aziz al fani masu ko titoyé mu ni ko mu ni mu wax ko ko façon bu nekk waxe na ko ba ajruka la alay damay bëgg a tëj parce que yàgg na بخاتم نور الأولياء وجبه شفيع الورى في الحشر أعلاه bari kosay jërëjëf min deqi jeg sa wona e bari wona e bari anil mans mani mi guddi eh, géej la rek bul ni mukk danaa dugg rek jeexal li ci biir loo am ci moom rek baax na dañoo def délégation fekk si ko ni ko sëriñ bi booba mi ngi jënd limu am bi sëriñ Cheikh taawam wooma ni ma sa papa daal xam naa ni yow moom di nga ci man dara boo mënoon a waxtaan ak moom parce que moom dafa moom dafa rusoon baay bi ragal ko muy kilifaam waaw li ñu ñeme woon sëriñ sax moom ñemewu ko ci woon waaw waaye amoon na fulla ju toll ni moom sëriñ Cheikh boo ko ma boo masaana wax dara baayam ni ko sëriñ Cheikh nangam mu ni la defal attention de buy ñëw ma koy wax te xam nga ko moom moom loo ñemewu la ñu waxaat bul ni moo ko nàngam baayam Serigne Cheikh la jël ba mu jeex tàkk ci fulla ak démocratie mu ni ma limousine bi kañaa ngi coow rek ak seegul sax coow li bare na nangam nangam kii waaye xam nga Cheikh Hadj Malick Touré Maodo Touré bu sunu nijaay daf ma wax lu am solo dafa mel ni gis nga su ngeen bëggee mucc da ngeen def ni seen papa ma ni ko ah, nijaay nu sam papa def mu ni sa papa dafa fexe ba civilisation tubaab yi mu bàyyeekook ñoom jël civilisation mag ñi waaw mu ni dafa jël civilisation tubaab yi rek bàyyi kook ñoom jël civilisation mag ma ni ko waaw ah, mu ni ma mais loo ci gis ñëpp fekk si nañ ko mu daan sol grand mbubb def ca mbaxane def ca dàll ñëw taxaw nga ñëw di simple mu jël mbub moo xam ni léegi la sax waaye daan jël mbub moo xam ni dañ koy gome gome bu bu la rombee xatang xatang ji waaw yëgul li xew sëriñ bi yëgul li xew li gi riir la yëgul bu xasaana toog ba jàkkaarloog nit ñi lenn rek mooy itteem yàlla nee na yonent bi nee na sama maam nee na nee na kenn duma ci tëj te lu ma ci wax du dañ kenn du ko dindi masula wax lu ñu dul baaram mu ñëw ma ñëw ci moom ma ni ko papa tool yi bare na de mu ma lu xew ma ne ko ah si dañuy wax ni rek limousine bi man si xam nga coow li yow nangam nangam fu ne nga kalawaayu mu ni tekk rek di déglu déglu ma ba ma àggal mu ni waaw Habib ma ni ko si mu ni ma xalifa cheikh avion sax jomb ko ma ni ko waaw mu ma ndax tubaab yi koy war dañ ñoo gën kàccoor yi gëmuñu yàlla gëmuñu dara liggéeyaluñu yàlla di am ay jet privé di dem lu leen neex ñu ñu gëm yàlla gëm Muhammad di xalifa cheikh mënuñoo am limousine fan la ñu jëm bàyyi ma ak sama limousine damay war ba mu neex ma ma ni ko waral am nga ci droit mu war ci limousine bi ñaari weer lañ ci teg ñu jékki-jékki dégg ni Ablaye Wade wutal na sam ba suñu baay eh, eh, Serigne Lamine Bara limousine ñu daal di gaañ daal di coow limousine ma ñëw mu ni ma waa léegi nag xanaa di ngeen dem Touba wax ak seen baay bopp <laughs> ma ni ko déedéet si mu ni ma bàyyi leen ñoo lii mu ni ma lii xewlu yàlla la koy def gënuñu cee yeey nga xam ni moom nit ku bàyyi woon xel boppam la mais ku bàyyi woon xel maamam la masuma fàttaliku sëriñ bi mu am wér nekk Tiwaawan jumaa jot te du ko julli ji ca biir mbooloo ma masuma fàttaliku sëriñ bi ajjuma jot wala altine te du dem taxaw ci raw du baayam ak raw du maamam ziar leen kenn ku ci nekk foofu nga ko daan dàkki demoon na ba sëriñ bi guddi ajjuma bu jot bu tëddee feebar wallahi tallahi ak waxtu yàlla bi bu ma agsee loolu moo doon sama itte amatuma woon benn soxla mu fekk ma ma nekk senegal noo mën a def guddi ajjuma buy reer deux heures du matin sax bu ma agsee mu ni ma guddee nga de noo def ndax dafa ma daan wax ni ma demal nga ziyaaral ma samaam ma daw ziyaare ji amul benn guddi àjjuma bu may toog te ñëwul ma néeg ma ba ma agsi léeg-léeg ñoom Moustapha dañ may wow foo toll man leen maa ngi ci yoon bi sa papa reer bi dugg na de reer na ba pare de léeg-léeg mu ma xar yi foo toll man de mën a gumaa tëdd ndax di la nekk kon sëriñ bi tabaarakallah macha allah. Euh, ci ay jëfandikoom ci wàllu tariqa bi dëkk yépp mën nga leen song ba mu des Tiwaawan dëju fa yendu fa fanaan fa juróom-ñaari fan yoo génnul nee bés bi sëriñ Babacar jëkke génn àdduna dañoo jëm tabaski ndax barax lu sëriñ Babacar génn àdduna koor koor yi diggi tabaski tabaski jot ña daan laaj sëriñ Babacar xar yépp ñëw wërsi ko sëriñ bi yorul dépense bu mu yóbbaale ba yor xar mu mu joxe xaram sax wóoragul nee na ma daal di porté malade rek tëdd feebar ni bëkk néegi bu ma kenn fëgg sama bëñ bi kenn mënu maa sama bopp bi wax a wax a di tëdd nee na jékki-jékki rek maa siis fëgg sama fenêtre ni ma marabat marabat minute ne ma daal di xawa a ŋaaw lu dikk ni ko maas lan la dama feebar waxoon naa bu ma kii mu ni ko xam naa ni dangaa feebar waaye diw ak diw mënoo leen a ñàkk ba ñu gis ndax sa baay barki démb la fi jóge ñu bëgg a jaayante si ak yow mënoo fexe ba doo leen gis ñaari minute du ko mat mu ni ko mars saal baa ngi fees te damaa feebar mu ni ko dama ni fi bo ci bunt bi nga leen di ñaanale nee na ma agsi maas ni leen sëriñ bi maa ko yëkkati feebara ko të tëral nangam nangam léegi nag tàllaleen loxo yi mu ñaanal leen yéen ñëpp gis na leen dégg na seeni soxla tàllaleen nee na xaaruma fa sax maas naan tàllale dama ne ëf di jóg rek ne góor ga dëkk ndukumaan ni ma man kat dama am lu ma niseroon ci sa baay te jotuma ko mottali yàlla won ma ko ci gént mu ni naa ko mottali ci yow mu ngi nii muy as ëmb soo xam ni xaalis def nee na geneen góor ga nee na may bëgg a génne am lu ma ko ci jox mu daal di génnewaat poosam ni ko daf maa ëpp le waaye ëpp ma yéene man tam sama lii maa ko ci def nee na geneen góor daal ni ko man kat dañ maa yónni woon xar mu ñu daan jox sa baay sa baay feeñu leen ni nañ la ko jox am nee na kii nangam nangam nee na affaire bi xaw a takkar naa si nee bàyyi bàyyi Ibra Lo bàyyi ah, góor gi taseloo daal di xëcc ci mbubbam ni ko sama buumu xare gi nii ne roset jox ko ñi doon laaj xar kenn ku ne ma leen koy def di leen ko def ba affaire ba jeex ma dugg si ci biir nee na gis la ma dese te kenn desatul ci saal bi ma ne aha Serigne Babacar daf ma doon woon di ma njaboot gi sama njaboot sa yoon nekku ci waaw bu waxtu yu jotatee na nga génn rek yow. gaaw na fa mbay. faju aajo daaw na fa mbay. bisu dàpp daaw na fa mbay. nee dama daan jàngale ba ca digg ba ma tëj téere yi daw wuti sëriñ Babacar ñëw nuyu ko mu ni ma Mansour ah lu xew jàngale woo tey mu ni ko dama laa namoon rek si danga àggale mu ni ko de dama laa namoon rek bëgg laa xool delluwaat bëggoon sëriñ Babacar dama dégg ñaari kàddu sànq ci lay tëjee dama leen wax ni Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour biñ ko defee xalifa yàgg na dafa am ñaar rek ñaar yuñ ciy wax rek ngeen dégg ko bàyyi ko xel dafa am benn góor gu bare woon xam-xam ba ñuy naw xam-xamam ñu naan moo fi ëpp xam-xam dafa am xam-xam ba dafay jàngale bayaan ba di ko xawa a sax yéejjee sëriñ Babacar Sy ba ñu ñëwee nettali ko Cheikh Seydou Bakar radiyallahu taala anhu tombeek Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour balay xëy daara ji ci sëñ Babacar lay jaar nuyu ko ñaanal ko mu soog a dem ca daara ji jàngale ji daara bi bi boroom aykat bi boroom joxañ bi boroom tekk boroom dégg borom listiqaama ay waxtu ay minute ay seconde mu jeex ana Cheikh Alxaaj Abdu ana Cheikh Alxaaj Mansour Cheikh Sidi Mouhamadou wax ni ñaar yàlla yonent bi nee na bàyyi na fi ñaari waar bii dafay wax bii du wax bii alquran la bii dee ku ci waarul dooto waaru moom ci boppam mu ni am na ñaari waar ku ci waarul doo waaru muy ñaari sorol yi ca Tiwaawan mu ni bii sorol sëñ Babacar si tëdd ci bële sorol Seydi Xaaj Malik ak njabootam ñaari waar yi ku ci waarul doota waaru qul inna al mawta alladina minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimi alxaybi wa shahada yàlla nee fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun Seydi Xaaj Malik nee na euh, na siital mawta wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxril mamaati nasib nasibun fa lil kulli min bahril mamaati bahril mamaati lil kulli nasibun nasibun lil kulli min bahril mamaati bahril mamaati nasibun lil kulli fa lil kulli min bahril mamaati nasibun Seydi Hadj Malick nee na ala kullu shay'in wala shakka annahu yusallimuhu yaada alhabibu shuubu wa in taala umruhu saydu daa'i hulkatin wa yujibu ala kullu mawludin wa in taala umruhu saydu daa'i hulkatin wa yujibu bay jaañ matt ma dëkkoon Tiwaawoon daan na wax ni am naa garab bu dee ñëpp wut si ko mu rang mu rang loo leen kenn ku nekk mun la bala ma laa wax garab dee nga joxe téeméer ñëpp di joxe téeméer rang ngir bañ dee ragal dee boo agsee ba ci moom ba jox ko téeméer bi mun la bul juddu mooy garab gi bul juddu ku bañ dee bul juddu garab gàngoo li am solo rek mooy fexe ba bu la yàlla jël mu jël la ci parce que jël moom jóge fi moom du mën ñàkk ala kulli xaalin da ngay dem da dem kañ la fan la naka la fu may deewe yàlla nee na maa ko xam wa ma tadri nafsum maada taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut inna allaha alimun xabir da bëgg a tukki doo mën tukki sa moroom bëgg a tukki ngeen ànd di wut visa visa tëleen yàlla xéewale ko visa nga naan ko booy foo jaar mu jékki-jékki biyee dikkal ko du xam fu mu jaar mu dem kenn du ko refulle ndeke yàlla boobu ma nga namm bakkanam mu war a faatoo ca France mu bàyyi ko ba mu agsi mu ràndi ko jël bakkanam kon yàlla kenn mënu koo daw ida jaa ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun yàlla nee na bu ma nee 6 heures la 6 heures pile ma yóbbu sa ruux du nekk moins 5 du nekk 6 heures 5 yonent yàlla Suleymaan dafa toog ci jataay bu yaatu benn nit ñëw fëgg dugg toog di xool ci mbooloo ma mu yonent yàlla Suleymaan toogoon mu am kum cay xool ni ko jàkk di ko xool ba mu yàgg ka mu doon xool yaramam di daw gan nga génnaat ba mu génnee ka mu doon xool daw ñëw ci yonent yàlla Suleymaan ni ko dafa am sa benn gan gu fi dugg si lee gis nga ko mu ni ko waaw mu ni ko daf may xool ba sama yaram di daw kii mooy kan mu ni ko mooy malakul mawti mu ni ko malakul mawti ku mu xool xelam a ngi ci yow dimbale ma rek ma bala mu may rey nu ñuy def mu ni ko rawaleel sama bakkan yàlla jox na la ngelaw tàggatal la ko ba loo ci bëgg a def def ko mu mel na ñu ngi fii ci dakaar mu ni ko na ma rawale ma dem Tambacounda malak yonent yàlla Suleymaan woo ngelaw jox ko ndigal mu ànd ak waa ji yóbbu ko Tambacounda deux minutes malakul mawti dugg si waat mu woo nuyoon teg moom ni ko bi nga fi ñëwee sànq sama gan gi nga doon xool ba mu tiit ci boppam lu ko waral mu ni ko yàllaa ma ni woon naa ñëw jël si ruuxam boo koy jël na nga ko jël 6 heures ma xool sama montre mu nekk 6 heures moins quart mu ni ko teg ci ni ko bul ko jëlee dakaar na nga ko jëlee Tambacounda ma xool heure bi mu nekk 6 heures moins quart may xalaat waa ji li taxoon ma di ko xool mooy nan la fi waa ji di jógee dem Tamba te 6 du paase ku xam diggante Dakar ak Tamba mu ni ma jaaxle génn ci biti ak sama jaaxle man malakul mawti di xalaat naan nan laa mën a def yàlla mosuma sant lu ma deful te tey nan naa nana maa sant lu ma deful nee na ni ma jaaxlee taxaw di ko xalaat laa jékki-jékki gis ngelaw li ni cas waa ji di ko yóbbu xaw ma fan la ko yóbbu ma topp ndeke ma ngi ko jëmale Tamba dafay dugg Tamba 6 jot ma jël ruuxam mu ni ko nga ni mu ni ko dama la doon nuyu si rek ak di la rendre si compte waaye waa ji moom pare naa ci moom yàgg na tuna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi alxaybi wa shahada yàlla nee na fa yunabbiukum bima kuntum taamaluun Seydi Xaaj Malik nee na euh, araka na siital mawta wal mawtu mawridun fa lil kulli min bahril mamaati nasib nasibun fa lil kulli min bahril mamaati bahril mamaati lil kulli nasibun nasibun lil kulli min bahril mamaati bahrul mamaati nasibun lil kulli fa lil kulli min bahril mamaati nasibun Seydi Hadj Malick nee na ala kullu shay'in wala shakka annahu yusallimuhu yaadha alhabibu shuubu wa in taala umruhu saydu daa'i hulkatin wa yujibu ala kullu mawludin wa in taala umruhu sayduhu daa'i hulkatun wa yujib bay jaañ matt ma dëkkoon Tiwaawan daan na wax ni am naa garab bu dee ñëpp wut si ko mu rang mu rang loo leen kenn ku nekk mun la bala ma laa wax garab dee nga joxe téeméer ñëpp di joxe téeméer rang ngir bañ dee ragal dee boo agsee ba ci moom ba jox ko téeméer bi mun la bul juddu mooy garab gi bul juddu ku bañ dee bul juddu garab gàngoo li am solo rek mooy fexe ba bu la yàlla jël mu jël la ci parce que jël moom jóge fi moom du mën ñàkk ala kulli xaalin da ngay def da ñëppay dem kañ la fan la naka la fu may deewe yàlla nee na maa ko xam wa ma tadri nafsum maada taksibu gadan wa ma tadri nafsum bi ay ardin tamut inna allaha alimun xabir da bëgg a tukki doo mën tukki sa moroom bëgg a tukki ngeen ànd di wut visa visa tëleen yàlla xéewale ko visa nga naan ko booy foo jaar mu jékki-jékki bi dikkal ko du xam fu mu jaar mu dem kenn du ko refulle ndeke yàlla boobu ma nga namm bakkanam mu war a faatoo ca France mu bàyyi ko ba mu agsi mu ràndi ko jël bakkanam kon yàlla kenn mënu ko daw ida jaa ajaluhum la yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun yàlla nee na bu ma nee 6 heures la 6 heures pile ma yóbbu sa ruux du nekk moins 5 du nekk 6 heures 5 yonent yàlla Suleymaan dafa toog ci jataay bu yaatu benn nit ñëw fëgg dugg toog di xool ci mbooloo ma mu yonent yàlla Suleymaan toogoon mu am kum cay xool ni ko jàkk di ko xool ba mu yàgg ka mu doon xool yaramam di daw gan ga génnaat ba mu génnee ka mu doon xool daw ñëw ci yonent yàlla Suleymaan ni ko dafa am sa benn gan gu fi dugg si lee gis nga ko mu ni ko waaw mu ni ko daf may xool ba sama yaram di daw kii mooy kan mu ni ko mooy malakul mawti mu ni ko malakul mawti ku mu xool xelam ak ci yow dimbale ma rek ma bala mu may rey nu ñuy def mu ni ko rawaleel sama bakkan yàlla jox na la ngelaw tàggatal la ko ba loo ci bëgg a def def ko mu mel na ñu ngi fii ci dakaar mu ni ko na ma rawale ma dem Tambacounda malak yonent yàlla Suleymaan woo ngelaw jox ko ndigal mu ànd ak waa ji yóbbu ko Tambacounda deux minutes malakul mawti dugg si waat mu woo nuyoon teg moom ni ko bi nga fi ñëwee sànq sama gan gi nga doon xool ba mu tiit ci boppam lu ko waral mu ni ko yàllaa ma ni woon naa ñëw jël si ruuxam boo koy jël na nga ko jël 6 heures ma xool sama mont mu nekk 6 heures moins quart mu ni ko teg ci ni ko bul ko jëlee dakaar na nga ko jëlee Tambacounda ma xool heure bi mu nekk 6 heures moins quart may xalaat waa ji li taxoon ma di ko xool mooy nan la fi waa ji di jóge dem Tamba te 6 du paase ku xam diggante Dakar ak Tamba mu ni ma jaaxle génn ci biti ak sama jaaxle man ma malakul mawti di xalaat naan nan laa mën a def yàlla mosuma sant lu ma deful te tey nan naa nana maa sant lu ma deful nee na ni ma jaaxlee taxaw di ko xalaat laa jékki-jékki gis ngelaw li ni cas waa ji di ko yóbbu xaw ma fan la ko yóbbu ma topp ndeke ma ngi ko jëmale Tamba dafay dugg Tamba 6 jot ma jël ruuxam mu ni ko nga ni mu ni ko dama la doon nuyu si rek ak di la rendre si compte waaye waa ji moom pare naa ci moom yàgg na qul inna al mawta alladi tafiruuna minhu moo tax ya gis nga yàlla nit ñi xalaatatuñu yàlla kenn ku nekk yaa ngi xalaat sa bopp ak sa bakkan ak fooy fanaan defar fi ngay fanaan xam ndax danga fa nelawee ku gën wala déet defar sa lal ba mu jekk yàlla bàyyi ba nga defar ba jekk ba cuuraay reer ba suur ba tàggoo ba defan ni yaa ci nekk boo xëyee néew ngay doon yàlla rek ko mën ku xalaatul yàlla dangay ngay nax sa bopp alhaakumu takaasur xatta zurtumul maqabir kalla kalla sawfa taalamun summa kalla sawfa taalamuun ay waay waay kallaa law taalamuuna ilma alyaqin la tarawunna aljahim su boobaa summa la tarawunnaha ayna alyaqin summa la tusalunna yawma idin ani naim ayna man shaado wa saado wa banaw halakal kullu falam tuxnil xulal ana ñuy daan woote ñi ñooy borom gratte-ciel yi ana borom kër yu rëy yi ana borom bâtiment yu mag yi ana borom alal yi ana borom oto yu rafet yi ana borom sañse yi tey boo demee ca sëg ya doo ci xàmmee kenn ñoom ñëpp même pied même égalité même niveau kon jaamu yàlla rek a wóor sama bàyyi nee boo ànd ak sa sëriñ mu lay nax naan la boo dee maa la res te waxu la jaamul yàlla loo yor na dal bu dee mbëkk na dal kurpeñ na dal yet na dal bés bu nekk ab sëriñ romb taalibeem fii ci 100 mètres wala ci kaso ñu tëj ko fi te ca mën dara mu ni kaso yii àdduna yi ku muy të kaso yàlla du ma wax te ñett sëriñ bokku ci ñett sëriñ bokku ci sukkuraat sëriñ bokk ca biir bàmmeel sëriñ nekku fa jéggi siraat sëriñ nekku fa amul benn sëriñ buy ànd ak taalibeem bëgg taalibe ba taalibe bi di ko defal lu nekk ba tax taalibe bay faatu sëriñ bi faatu ànd ak moom du dem da koy ñaan rek doo bëgg sa sëriñ ba muy dugg suuf nga toppaale ku ñun ñëpp kenn ku ci nekk sëriñ Mansour moo doon suñu bakkan bi mu faatoo dañ ko jooy benn fan lañ ko jooy ak di ko xalaat boobu ba léegi kenn deewul fekki ko kenn deewul fekki li nga yëg yow rek yaa ko yëg nit ñi nañu bàyyi di nax seen bopp innahum yarawnahu wa naraahu xariban nit ñi nit ñi nit ñi mënuñoo fexe ba dëgg du dëgg dëgg rek ay dëgg inna allaha huwa alxaq alxaq huwa allah yi ci des yëpp ay caaxaan réew mi nag toj na réew mi toj na mais du toja toja toja toja toj ba yàq diine ji diine dañuy coow ba yàqoo ca mais duñ coow ba yàqu mënuñoo fexe ba diine ji yàqu te dégg nañ fi lu nekk nag réew mi nag yàqu na complètement completement kenn ku ci nekk boo wéetee ca la neex boo wéetali ko ca la la neex kenn nekkatul ci li neex yàlla li neex sa bakkan rek ak sa bopp te bëgg ni kenn du wax léegi kenn amatul kàddu dangay wax li leen neex boo waxee li la neex ñu noppi loola dañ lay femmu ca saasa yor seen ay média yor seen ay télé yor seen ay rajo yor seen ay journaux ni la teetwaa noppi muut mbaa mott ñuy génn di wax lu leen neex toj nañ dëkk bi carte nañ ko yàq nañ ko lu leen neex guddeeg bëccëg barki démb la France wote góor jigéen kenn ñemewu koo tudd ci Sénégal te Sénégal bokk nañ ci yàgg na muy dem ba góor jigéen yi taxaw naan dañuy def marche fan la ñu jëm ci réew moo xam ne 96 pour cent ay jullit télé yi génn yëpp ñi ngi carte ñëpp carte loo nañ leen yónnee ma texte SMS kenn xamul foo jëm làmb fecc way amul kenn xamul fan la réew mu jëm pays sous-développé comme Sénégal kenn amul dara te kenn du wax fan lañu jëm forme ay nit yoo xam ne ay sëriñ lañu leen tuddee ak i oustaz ñu kontu dina ji dégg nañ fi Salman Rushdie dégg nañ fi Talima Nasri ku nekk dégg nañ ko kenn ku ci nekk xam-xam nga jàng ba ni kar Xaddaafi mii doon wax ñu di ko yërëm waxoon na fi ci ci génne woon na fi benn téere boo xam ne dafa ne woon xul yi yàlla wax ci alquran yëpp xul yi amul Muhammad la ko doon wax te Muhammad nekkatu fi kon bu kenn xul huwa allahu wala qul audu nañ ni huwa allahu ahad loolu mooy xew ba tey jii mboolem média yi nga gis yëpp télévision yi fii ñi ko jiite ñu ci bare ay jullit lañu amul benn émission diine bu ñu fay def lu dul dañ koy masqué li ci des ay émission yu ndaw ndaw lañ ñuy tegal di ñu ko may di ñu foye di ñu foye di ñu tegal ay yoo xam ni kenn xamu ko yàq nañu njaboot gi yëpp léegi kenn xamatu foo jëm ku nekk jóg artist nga ku nekk jóg nga artist nga ñu jël ñoo xam ni seen kàddu warul jóg am na ñoo xam ni dëgg dëgg dëgg al aashiqu ida takallam halaka wal aarifu ida lam yatakallam halaka am na koo xam ni war wax waru ko bu waxee dañ ko war a tëj ak koo xam ni bu noppee dañ ko war a tëj ñu war a wax nañu wax nañ leen bàyyi ñu wax ñu war a noppi noppi mais dëgg-dëgg yow ca làmb ja yaa fay jiite ca jàkka ja yaa fay jiite ca waxtaanukaay ba yaa fay jiite ca gàmbu ga yaa fay jiite fan lañ jëm bu fekkee ni ñuy jiite ca làmb ji ñuy jiite ci jàkk ji jiite ci conférence bi gàmm gi fu ñu jëm mais réew mi yàqu na réew mi yàqu na mag ñi nit ñi talatuñu seeni njaboot njaboot ji talatuñu kër gi kenn xamatul fa sa doom di jële réew mi yàqu na nañ ci wax gis nga lii ñuy wax nii du dem fenn gis nga fi mu toll nii tubaab yaa ngi bëgg a dee jaaxle nañu xamatuñu fu ñu jëm ñun lii ñu am ak as néew nañ ci téye te mooy mag ñi te mag ñaa ngi jeex de. bés bu nekk ñu naan ñu ay réew réew moo xam ne alaaji Maalik nga fa tëdd ak sëñ Touba dama ni soo demee ci ay iraq yi ay yonent kese fa tëdd yàlla ngay bombarde seeni dëkk ya amul benn nitu yàlla buy ëpp waxuma sax yonent yi waaye amul benn nitu yàlla buy ëpp doole saxaaba yi saxaaba yaa ngi tëdd ci àll bi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni ci gannaaw yonent yi sama saxaaba yi gannaaw saxaaba yi nag ka gën su ma lamsal su ma lamsal su ma lamsal su ma lamsal ñuy bëgg a rey rek alaaji Maalik a ngi fi tëdd diwa ngi fi tëdd diwa ngi fi tëdd di foye nit ñi di def lu leen neex boo ubbee rajo yi guddi da ngay tiit wax sa xalaat ku nekk di génne ku amul xalaat mooy waxee xalaat foo jëm léegi ñu jëm ci wàllu ah léegi ñu jëm ci wàllu vacances yi lu ne ngay gis lu ne ngay dégg fu ñu jëm nañu yar sunu bopp yar sunu njaboot delluwaat ci diine yàllaay dëgg de ay dëgg de fi mu toll nii nit ñi wuti alal moo leen gënal wuti yàlla wuti yàlla dootul dara ci ñoom koo ci waxal mu ni la yàlla soxorul yàlla garaawul yàlla soxorul de yàlla demul bay soxor yàlla amul sax soxor moom yàlla du lakki du dóore yow yaay lakk sa bopp yont bi sallallahu alayhi wa daf ñuy nettali benn xadis boo xam ni euh, dañuy seen benn euh, yowmal qiyaam yowmal qiyaam dangay gis dangay gis dangay gis euh, safara jóg wuti wuti pangama mooy fa ñuy régler jaam yi ñépp yonent bi daal di taxaw gis safara bés ba rasulullahi dafay wuti safara safara daf koy ëpp doole moom muhammad mu yooxu seydina jibril ni ko waxal ci safara gaaw parce que mi ngi wuti sama xeet Seydina Jibril jël benn ndab wala butéel walla dara bu def ndox jox ko ni ko wis ko ci safara mu wis ko ci safara safara sa fay mu ni naa Jibril ndox mi mana mu ni ko mooy sa jooyu xeet yu ragal yàlla di daan jooy la ma yàlla waxoon naa koy taataan moom laa taataan tey moo fay safara moo tax wa bu ul xaasi muxtafar yow muy jooy ci biir julli te gëmoo yàlla ragaloo yàlla bokkul ak ki ragal yàlla bay jooy ci biir julli nit ñi nañu jaamu yàlla te bàyyi caaxaan gis nga bu fekkee ni kër Cheikh xaj Malick gi ñu gëm dañoo dem fekk leen ñëpp di naan sàngara bu ñu taxee defal ni sàngara dafay dagan dañuy nax seen bopp naudu billahi min abdin tahallala ma qad xarama allahu makrallahi qad amina Sidi xaj Malick a ko wax maa ngi muslu ci jaam boo xam ne dafay fekk lu yàlla daganal mu di ko xaraamal wala mu fekk lu yàlla xaraamal mu di ko daganal sëriñ bi day wàññi leer ak xamoo xam na muy bàkk na muy ñaaneek na muy tuubee du dëgg tuub benn la bàkkaar benn la amul ñaar amul ñett bu ko defee yàlla duma ko bu ko taalibe bi defee yàlla duma ko te bu ëllëgee histoire dana am alaaj li waxoon na ni man Maodo moomu ma aljanna damaa xam yoon wi nañ ànd ñu bokk jaamu yàlla bu ëllëgee lu mu am ñu bokk waaye yowmal xiyaam yowmal xiyaamu jàmbur la ay quartier laa ki kër ki ay ruq boo fa nee cëpp jeex na fi mu toll nii sëriñ sa fa jiitu kenn xamul fu ñu ne njaboot ga fa jiitu it kenn xamul fan lañu placé kumpa la de nañ jaamu yàlla redressé waat nit ñi fexe ba kenn ku ci nekk la nga moom ñu jox la ko la nga war a def nga def ko nit ñi liggéey te bàyyi caaxaan gis nga caaxaan baaxul toppale di am du du dëgg du yàgg na nit ñi liggéey liggéey li ci yàlla defal maam Adama kenn xamul nu mu toll junniy la yàlla wàcc ci maam Adama métier bu ci nekk boo ca nekkee te gëm ko bàyyi ak yàlla wa aqilun yakunu fi shay'ayni yas'a fala thalitha duna may ni xasanatan takunu lil maadi wal nit ñi liggéey sabab su tarku tasabbubi qul leen te bu leen sukkandikoo yëngu ya noo ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp di baalu xaq ñëpp di ñaan yàlla yàlla bu mu nekk sunu mujj jataay yàlla na fi yàlla wàcc xéwal wàcc fi sutura bu ñu waxee luy offensé ñoo ngi koy jéggalu wa ma tawfiq illa billah ñi ngi ziar ñëpp